jugé à partir seulement ci nit ñi nga xam ne dañuy ne ci seen clavier di bind man bi sama compte Facebook piraté nañ ko ah, publier ci ay mbir mm-hmm. ma fexe ba jotaat ci dindi mbir yooyu mm-hmm. donc xam naa xam naa ne loolu mën a nekk <laughs> <laughs> ma dem ci Clédor Sène euh, euh, alors léegi boo boo seetaa gisee Clédor ni mbir yi évolué yéen tey yéen a woon sax ci ay liggéey yoo xam ne ah, ma ci ci ba tey lu soxal réew mi rek parce que moom tout temps mi ngi ci waar mos sa wàcc waaw mais boo gisee ni mu évolué serviteur de la de la de la nation. voilà kele kele <laughs> en or quoi kele d'or <laughs> ma macha allah dafa wuy turam. Mm. Euh, caabi caabi caabi ngalam la macha allah boo gisee ni mbir yi évolué. Mm. nga gis ne euh, teg nañ benn commission ad hoc pour lever immunité parlementaire am waaye li maître ma soxna kon waxoon bi nga toogee foofu. Mm. wax ne attention à la fabrication des faits. ndax nag dañ cee ex ndax léegi rek Moustapha mi ngi tiit ne euh, bëgg nañoo jëlee mbir mi ci viol yóbbu ko ci atteinte à la sécurité waaw euh, may jégalu retard bi. Euh, sama ah, sëriñ jégal nañu euh, Cheikh Omar. Uh-huh. mënumaa condamné parce que ñoo waroon a bokk jotaay bi. Uh-huh. parce que ci conférence de presse lañu laa jóge nii. Uh-huh. justement lu jëm ci évolution dossier affaire Ousmane Sonko bi. mais am mbetteel nag fekk fi sama frère monsieur Sarré Moustapha Sarré sama sama sama frère d'arme la sax je peux dire. ak euh, sama sama sama xarit euh, monsieur Fall. monsieur Fall donc euh, Pape Maguette encore une fois merci. Mm-hmm. léegi évolution dossier wu Ousmane Sonko bi. Mm-hmm. dañu tey lañ doon taxawal com com comité ad hoc bi. mais gis nañu li fa am dafa dafa rusloo bépp citoyen parce que dafa am ay ambiguïté yu yu yu incompréhensible naka lañu mën a convoquer ay député pour ñu lever immunité seen benn naataango te teguñu seen loxo. pièce bu ñu mën a mhm. loolu naka la mën a amee mhm. ba noppi procédure boo xam ni li xew daal je crois que soxla sax ñu ci attardé parce que fi mu nekk nii on est à l'ère du partage automatique de l'information mhm. ñoom ba ñu génnee assemblée la fa nekk yëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ko parce que tout le monde sait maintenant que la procédure euh, le, le réquisitoire du du du du, du procureur a visé X. Mm -hmm. Ousmane c'est pas X. Mm -hmm. les députés am nañu légitimité ni mais ñun mënuñu lever suñu immunité naataango boo xam ne kenn tudd ko ci dossier mu mel ni dafa am sax ñaari dossier parce que député majorité bi boo leen interviewé ñoom nee na ñoom de li ñu yor turu Ousmane Sonko moo ci nekk <laughs> mais on est dans un état où on est dans ci lan la ñu nekk donc loolu boo ko rapporté ak incohérence wu enquête préliminaire bi du ma ni sax enquête préliminaire bi parce que enquête préliminaire liggéeyu gendarmerie la mm-hmm. incohérence wu déclaration ak dossier bi ni mu démarré on part sur une accusation de vol viol yoo xam ni pistolet yi sax léegi kenn tuddutu ko ci parce que amoon na ñaari pistolet yi ñu ci doon tudd ay xooj ak ay du xam ci benn kër boo xam ni famille moo fiy moo moo fiy dund te donc loolu mënul prospérer loolu loolu ça s'est et puis la pièce maîtresse muy le rapport médical dindi na dind na euh, affaire viol boobu dès lors mën nañu gis de façon constatable ni complot la parce que ndaw si bi ñu ko jël see nuitamment au delà des heures de couvre-feu oto bi mu nekkoon y avait tous les experts requis euh, un un un avocat et un un médecin. ci benn oto à sept et puis euh, la plainte et d'une telle facture. que une main experte rek moo ko mën a bind. Euh, ki nga xam ni moo ko transporté. c'est un politicien de l'APR. et actuellement kenn mënul teg bët ndaw si. on dit que mu ngi ci kër kilifa. nee nañ mu ngi sax ci kër avocat bi ko recueillir avocat bi mu ngi menacé de plainte tout le monde parce que nee na moom bu ah, ko kenn tudd xam nga alors mais ana xale boobu ak ban moyen la la la am pour pour disparaître comme ça et puis euh, may prévenir ay mbokkam état bu demee ba mënatul génn ci lii mën na sàkkal xale bi pexe de xale bi nañ ko nañu lijjanti fu mu nekk parce que papaam jóge na dëkkam pour ñëw xool ko donc loolu du affaire ordinaire parce que ñu war dossier bi yëpp entendre nañ dem hmm. borom salon bi jëkkëram Euh, deuxième master ñëpp entendre nañ leen mais ñu ngi fii ñu ngi accessible nit ñi dem nañu ba ci ñoom euh, euh, tàllal leen micro ñoom ñu wax seen xalaat ak yooyu tout ça mais ndeyu mbill gi mais kenn mënu ko gis kenn mënu ko dégg waa këram sax moom moo leen di woo ci numéro privé ñoom mënuñu ko woo loolu c'est une anomalie ça ça finit de de, de dissiper doute bi amoon ci ñenn ñi ngi ñi ni lii c'est un complot mmh. léegi nag bu fekkee ni dañu bëgg glisser ba ci atteinte à la sûreté de l'État wala incitation à l'insurrection wala euh, incitation à la violence je crois que bu boobaa jaay doole lay doon parce que fan la ñu mën a sukkandi loolu fan la ñu mën a wéralee loolu mooy li xew ci koñu Ousmane Sonko ce jour là c'était lundi je crois hein man daf ma fekk ci àll bi alors qu'est-ce qui s'est passé un député buy jouir de son immunité am mbalaanu kiiraayam ñu convoqué ko irrégulièrement parce que préalablement dindiwuñu mbalaayu piraay kooku def une communication publique ni moom bu ñu dindee mbalaanu kiiraayam les cinq minutes d'après mu dem wuyu ji mais nañu respecter ay droit woo ay nitam parce que c'est pas un homme ordinaire c'est un c'est un c'est un leader politique avec un appareil politique avec un projet politique avec des adhérents à ce projet politique te moom gis na ni dañ koy jéem a fàggaagal il son immunité c'est un argument sur la base duquel la woote pour mbooloom respecter respecter lu immunité parlementaire am boobu parce que moom amul police amul gendarmerie ay militant la loolu est-ce que insurrection la est-ce que appel à l'insurrection la absolument pas léegi le désordre bi am foofu kan moo ko indi les forces de l'ordre ah, c'est la police yi nga xam ni ñoo ñëw ci koñu jàmbur un quartier résidentiel de façon irrégulière parce que xaw ma lu ñu fay def parce que son Sonko kenn waru ko ñëw jël si encore moins de façon manu militaire yi mais loolu affrontement bu bu amee qui a incité à la violence l'autorité qui a tenté d'arrêter un député jouissant de son immunité député bi am mbalaanu kiiraayam yow nga ñëw ni da koy da nga koy jàppalu par force ay nitam yéeg ni dangay ñëw pour jalgati yoon pour jàpp seen leader xam nga ci dëkk bi lan moo fi xew nit ñi di jalgati yoon ba noppi bëgg ñun ñu teg ñu ci yoon loolu mënut a nekk. parce que incitation à la violence ki ko doon def. mooy président Macky Sall en 2011. ba muy woote. tous les républicains. tous les citoyens. ñu xam ni jàmbarloo mooy moom la moom langage boobu la Ablaye Wade xam nañu wàcc ci mbedd mi jàmbarloo moom déloger ko du palais s'il le faut. mais démocratie moo tax ñu may ko mu exprimer wu loolu. ba toftal ci ay grands rassemblements ak ay grandes manifestations yoo xam ni. moom kenn jàpp ko ci woon pour euh, incitation à l'insurrection à la violence wala article quatre-vingt mm-hmm. à sa suite récemment Aliou Dembourou Sow lan la wax képp ku contre troisième mandat kooku député la comme ko Sonko mm-hmm. ñu jël ñun pël suñu jaas yi jàmbaarloog moom installé fi ab pël tudd Abdoulaye Daouda Diallo kooku non seulement def na incitation à la violence à l'insurrection mais def na apologie ethniciste loo xam ni xamuñu ko te loolu mu ñu commencé bëgg a bëri ci réew mi parce que am na ay questions yu ñu doon posé ay ay ay ay ay ñu arrêté ci seen ay appartenance ethnique ñoom ñoom ñoo dugal loolu te nañuy ci nañuy nommer nit ñi dans la république boo seetloo seen ay nomination boo seetloo seen architecture nga xam ni ñoom dañu am benn glissement ethniciste boo xam ne ñu ngi koy dugal ci gestion wu appareil d'État te loolu beneen danger la encore donc Aliou Dembourou Sow boobu il a manifestement et publiquement appelé à la violence ethniciste et à l'insurrection loolu fii la ñu fekk xanaa xanaa loolu c'est des faits te kooku mënul jouir même de son immunité parce que il était sous la flagrance flagrant délit la procureur da ko woo léegi nag est-ce que ñun dinañu nangu Ousmane Sonko ñu koy créer benn délit boo xam ne c'est pas flagrant c'est pas constant c'est pa prouvé et c'est provoqué par les forces de l'ordre qui ont voulu l'arrêter irrégulièrement violer son immunité parlementaire mmh. lan moo tax ñu créer comité ad hoc bi pour yoon mën a def liggéeyam ci moom kon à ce jour amul benn pièce d'enquête boo xam ne turu Ousmane Sonko mu ngi ci mmh. du procès verbal du rapport médical du constatation il est pas dans le dossier mmh. x c'est qui mais si loolu Clédor dégg naa benn constitutionnaliste mu ne. Mhm. Euh, procureur amul woon droit tudd tudd Ousmane Sonko fii léegi levé gu ñu immunité bi moo tax mu def moom x. Euh, waa loolu c'est juridique yooyu. waaw léegi mbiri droit la xam nga yooyu juriste wax na loolu. yooyu yooyu <laughs> xam nga ñoo mën tappale ñoo xam nga yooyu. c'est du juridisme loolu nañ ak ñoom. Ah. waaw c'est c'est c'est du juridisme cest à ñoom ma bàyyi kaaw Ousmane Sonko ci affaire levée immunité parlementaire euh, Khalifa Sall. mandat de député am daf ko dab bi mu nekkee prison. waaw ñu ñu exiger de son mandat de député et et qu'on en tire les conséquences mooy mënuñu ko maintenir dans les liens de la détention mm-hmm. tant que levé wuñu immunité parlementaire. te dañ ko war a libérer pour mu assister à la première séance. Mm-hmm. ba ñu ni woon le le doyen des députés moom moo war a présider et cetera def requête bi. yaa ngi ñu fàttali ko épisode boobu. Mm-hmm. mais Benno Bokk Yaakaar dafa def bloc. on on lui privé de ses droits pendant plusieurs ba am fu ñu àgg ci procédure bi ils étaient obligés de lever l'immunité